Khalif cher Seyd El Hadj Niu de Dileziar, Chituru, président de la république président Macky Sall mi délégation bu am solo ministre Augustin directeur de cabinet président de la république ministre Sidiki Kaba ministre Moussa balde ministre Omar Gueye ministre Youssou Ndour gouverneur Moustapha Ndaw préfet Makan Mbeng délégation député yi lim na leen léegi ma jukki ci rek président Abdoulaye Makhtar Diop ñi ngi ànd également ak euh, président du conseil d'administration de l'ONAS président du Président du conseil d'administration Lonaz muy ministre Abdou Nessal, Nyoufi ñëw président de la république Serigne bi nous ngi nuyu Pape Malick Sy di di nuyu mbooleem muqaddam ak mbooleem ñi teewal seen réew fii ci senegaal di nuyu mbooleem kilifay diine yi ak kilifay aada yi ñi ñëw ci xeexoo bii ñu beral nuyoo suñu mbokk yi nga xam ne yi ñu ngi jógee ci Maroc ñëw fi ak délégation bu am solo te at mu nekk ñu am taxawaay bu particulier fii ci gàmmu gi ci Tivaouane sëriñ bi ñu ngi nuyu également ñi nga xam ne ñi ñi ngi jot ci suñu kàddu te yàlla def mënuñu teew ñu nekk fii ci réew mi wala ñu nekk ci bitim réew gannaaw loolu sëriñ bi maa ngi lay ndokkeel ci bés bu tedd bi ci bés bu màgg bi muy bésu màggal ganeek àdduna ngën gi mbindéef seydina muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne yàlla moo ko màggal su ma yeboo sax wax ne lii ñu koy defal muy gàmmu sunu boroom moo ko ko njëkk defal ndax boo xoolee suratul ahzab aay juróom fukk ak juróom benn yàlla mi ngi koy wax inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima man yàlla ak samay malaaka dañuy julli di sëlmal ci seyduna muhammad ngir màggal ko kon yéen ñi ngeen xam ne dangeen ma gëm dangeen gëm yàlla julli leen ci moom tey sëlmal ci moom te di ko màggal ci sóoratul naj mi yàlla tàgg na yonentu yàlla muhammad tàgg na aw làmmiñam tàgg na ab xolam tàgg na fa ay bëtam tàgg na ab dëndam ci sóoratul xalam ay ñeent yàlla tàgg na ko wa innaka la ala xuluqul azim yow yonent yàlla muhammad yaa tedd yaa sell yaa ràngoo te da ngay jikko moom yonent bi ci boppam dafa daan màggal bésu juddoom ndax dafa daan woor altine bu jot bi mu ne zaaka yawma wulittu fihi bésu altine laa gane àddina moo tax ma di ko woor ngir màggal ko kon sëriñ bi yàlla nañu yàlla fayal suñu maam Seydi El Hadj Malick moom mi ñu baaxee lii njabootam taxawee ko ci ginnaawam taxawaay bu rafet ba yóbbu ko tey ci dimension bu koy bii Seydi El Hadj si ak bëgg yonent yàlla Muhammad dundam yépp ak yaakaaram yépp ci Seydina Muhammad la ko def wax ci nuniya wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi tanzimi in ijadhu sujuni juddu yonent bi teranga la tedd nga la faju aajo àdduna ak alaxira xam ngeen ne Maodo li mu def ci diine bari na taxawu na ay daara tabax na ay góor yàlla yu fees dell ak leer mu wasaare leen ci biir réew mi kenn ku nekk mu yebal la ci ab gox nga nekk biddiw buy tàkk di leer di leeral bind na ci xam-xam lu bari jaamukatu yàlla bu mag la woon ku dëddu àdduna la woon ku ragal yàlla la woon boroom yitte ju kowe la woon daana wax naan Maodo bu ëllëgee yowmal xiyaam danaa def yitte bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jiitoo ñeenti xalifaam yi dar muy seydina aboubacar seydina omar seydina ousmane ak seydina aliw bu ñu teggee seen tànk ma teg sama tànk waaye lii nag li muy bari bari ci li mu def nee na bu ëllëgee bu teewee ci kanamu sunu borom bu ko yàlla laajee alaaji Malick loo indi jëf ji li muy rëy rëy nee na du ma tudd benn wax na ci miimiya sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak màggal ko moom laa indi te moom laa yaakaar Seydi Ababacar Sy Mansour réew mi am nañ ci yow yaakaar ndax ndono li nga toogee sa waajur Seydou Ababacar bi mu doonee Cheikh Seydou bi mu doonee Cheikh Seydou Hadj Malick Sy dafa fees dell ak wilaya ak ngor taxawu réew mi taxaw bu rafet ba xel yépp dal naka noonu sa waajur Seydou Abdou Aziz Sy Dabakh ñeent fukki at moom mi nga xam ne moom mi nga xam ne yàlla dafa xar xoli jaam yépp dugal ci seen biir mu juboo woon ak jaam yépp tey sëriñ bi marta boobu ba boobu nga toogee yàlla def nga mat ko sëkk sëriñ bi gàmm yi yépp day daanañ ci sawar a ñëw waaye ren nag ci la raw bi nga xamee ni bii danga jël bés bu am solo nga pare ne ko suñu maam El Hadj Baba ca podoor ak suñu maam El Hadj Daouda Dia bu mbëlëxee ci Jolof maam Daouda Dia bi muy ñëw ci maam Maodo fekk na mu mokkal alxuraan fekk na ko ca Ndar fekk ko ca Njarnde ak fii ci Tiwaawoon bi mu delloo Jolof nekk mu xadam maam Maodo tasaare na fa tarixa ya ñu bari jokkoon ci moom deretam jaxasoo woon ak deretu maam Maodo Malick ndax joxoon nañ ko soxna Umu Si El Hadj Daouda taxawaayam benn la woon njaboot gi mu fi bàyyi continuer liggéey boobu ñu jiital ci lépp sàmm ak doxal kóllëre ak Tiwaawan kon sëriñ bi yàlla nañu la yàlla fayal teraanga bi nga ñu defal sëriñ bi àdduna bi fi mu toll jaxasoo bari na fitna yi bari na te lépp ci askan wi lay dal sëriñ bi li am ci réew yi ñu wër walla bokk yi ñu bokkal sous région bi war nañ cee bàyyi xel fitna bi am ci réew yooyu ñi koy def dañuy mbubboo lislaam lislaam nag bi mu duggee ci réew mi yàgg na lool te jur nu fi wàllu diine ay royuwaay yu bari lislaam ñëw na fi tarixa fekk ko fi te mag ñi fi nekkoon jàppoon ci bu baax jàpp bu rafet sëriñ bi ne ñëpp xam ne jàmm ji ñu dëkkee di mën a dem ak a dikk di liggéey di xew mu ñu nu ñu neexee nu mu ñu soobee te yàqul ci suñu diine dara jàmm jooju kenn ku nekk daf ko war a sasoo def boppam ab sàmm kon ñi ngi soññ nit yi diine yi rawatina sëriñ si yéen ñi nga xam ne mbooloo dinañ leen wuyusi ngeen yokk ci kàddu yi lu leen di jox xam-xam ak ay jumtuwaay yuy tax dara du leen këf rawatina nag muy kàddu yu jëm ci ndaw ñi sëriñ Ababacar Sy président Macky Sall nee na dayoo bi dëkk bi am ak limu nit ñi koy wuyu si rawatina ñi bëgg a dëkk ak yéen ci dëkk bu sell bi tax na li mu tàmbali woon ci dëkk bi dina ko àggale ndeem soob na yàlla mu dellu ci ne état bi dina taxaw ànd ak mairie bi ngir fexe ba dëkkuwaay yi nga xam ne kii yokk na fii ci dëkk bi lu mel ni ndox lu mel ni courant lu mel ni yoon mën na yegg ci ñoom wàllu assainissement bi nga xam ne bii tamit tàmbali na ko ndax Tivaouane daf ko boole woon ci programme yi dix villes yi entreprise bi war naa gën a baral liggéeyam sëriñ bi hôpital bi nga xam ne sa yitte la ministre bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram wax na ma ne ci at mii di ñëw am na programme spécial ngir yëkkati jumtuwaay yi docteur yi di jëfandikoo yëkkati dayu hôpital bi sëriñ Ababacar néega ni daaw réew mi jaxoon na tiitaange amoon na ci ñenn ñi ndax dayoo xëccoo njiitu réew mi la woon fu nu taxawoon doon ñaan jàmm ci réew mi rawatina ci ëttub Maam Maodo Malick bii yow ak njaboot gi ñaan ngeen ci bu baax yàlla nangu lu jafe woon lu jafe amoon fii ci réew mi ñu woote ci jàmm altine nit ñi dem dellu ci seen liggéey président Macky Sall bi ko yàlla tegaatee ci bopp réew mi ci lu kenn werantewul mu jóg woo ñépp ñu pencoo tey réew mi li ëpp ci kujj gi wuyusu ko ñu am yaakaar sax ne li ci des ak si néew danañ fekk si ndax loolu mooy taaral suñu démocratie mooy taaral suñu nekkin ñaanal ngeen président yàlla tegaat ko ci boppu réew mi ñu ngi sàkkuwaat ci yow yaak njabootu maam Seydi Alhaj Malick ngeen ñaanal ba yàlla mottali yéeneem ci réew mi mu continuer ay projet yàlla sàmm réew mi ba sunu gaal gi teer ci teefesu jàmm sëriñ bi nawet bi amoon nañ ci ay xel ñaar waaye fii mu toll nii daanaka jeex na yaakaar tàbbi na ngeen ñaan lépp loo xam ne ne baykat di jël nañ ko ci ñu muurloo ko sali ala sajidin qabla al wara fa ala bi sab'i mi'ati amin rab amin rabbi allah wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh